damay sóor di jàkkaarloog Sénégalais yi damay sóor sax di métti xo métti la ñuy wax xoolal damay sóor xoolal après di métti léegi moom ah xoolal damay lok samay jolox yor samay buukul buga bugal teg ablo soña wata maay promotion tous bu xaayee ñor na ah lan mooy problème bi Sénégal yi dama jàle di leen firi ñuy gis di firi bàcc bu yéexee doo ko gis ñun ay doomu Pikine lañ duñu ragal man doomu Pikine laa barke Alaaji Fallu Mbàkke ragal newul ci ba pare dafa am ma xool dama maam Njaay Savon ma ne ko ah, mu ne yow lépp mën ko man may bandi dérangé wu li may wax xam nga li may wax nii xam nga moo ko xam tàñ naa <laughs> nee na day toog fi mu toog nee na wax ci maam Ndiaye ne leen kii li ngeen wax farege wu ko. kii dañ ko xam non leen ma yéen man bandi man sama maam bandi woon. dina fay rek man sama maam bandi la woon la ca maam sëta koy jël la ca maam sëta koy jël man je suis bandi ragal newul ci man moo tax wax yi ngeen wax ay réer la ma def damay faxas. ni Viviane naan ni man xeer la loolu mën na war rek Viviane naan xoolal li ñuy wax pap Cheikh man xeer la man maa xana mo ma xeeru ngor bi sama mama ko imigré eh? loolu lañ xamul. làmp ngor jal joob sàng maar fukki penc ak juroom ñaar sama mama ko imigré eh? man kangam la man dafa tax wëruma bu baax gisoo leen ma duma nit ñi dañuy dañuy liggéey di nelaw man duma nelaw dem ba la laa tëdd quatre heures. yeewu quatre heures du matin laa tëdd yeewu neuf heures kon kooku xam ngeen wérut kon yéen ñi wax noppalu leen kii ngeen di wax mënoo leen ci moom yoo tax waaw ñu démarré waaw damay xuloo di jaay <laughs> saabu bi nag saabu bi